Jude Bellingham ni muy préparé match Manchester City bi ñëpp maase na ni match boobee jàpp na ci yim mu sa gën a fonk ki match yi mu football ci àdduna wala ngal kàpp ndax am na gàcce goo xam ni merengue yi amoon nañ ko daaw loolee nag ginnaaw bi mu delsee bëggul loolee am moom mii di Jude Bellingham taxawaayam ñu mën cee bàyyi xel bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne bëgg nañ ko faram-fàcce gars yi entraînement complet bu ma Madrid am na ci Koulibaly tamit international sénégale jër na parole du lenn lu mu yebbi ci ay kàddu moom mii di international sénégalais bi mbégte ak maanaam kaddu yi mu indi ci li nga xam ne mooy suuru fête indépendance maanaam bu ñu ko mënee wax mooy bés bi nga xam ne jàpp nañ ni. lanu moomoon suñu bopp te ñu bari jàpp ni moomunu suñu bopp ba tey jii mën naa am ak li changement yi xam ne am na dees nanu moom suñu bopp ma gërëm leen sant leen bala maa wéy ci information yi sàkk ci yow mi door a ñëw ci gene bi nga laal ndànk abonnement bi ndax dana lu ñu mën di dugal nga man ko coppati ndànk maanaam di ko euh, laal ndànk loolee nag nekk lu ama am solo ci li nga xam ne mooy bile seen ndax danañ ko bëgg euh, ndax kuy def information ku lay seetaan nga bëgg waaye information yi li leer ba leer mooy wér na wóor na jaar na ci aw yoon gëstu bi am na solo bu baax a baax maanaam match boobee nag euh, ñu mën ko jàpp mu nekk ab quart def finale boo xam ne Real Madrid ñu ngi koy amal waaye bala ñu ci dikk ci loolee lépp dañ koy commencé ak Bellingham mi nga xam ne gars yi yéen ni ngeen ko gisee nii ci ñaari façon yoo xam ne def na ko entraînement tey ji ci suba gi cuuy fële ca Valdebas ak ci li nga xam ne daanaka moo nekk salle de musculation yi nga xam ne moo nekk ci biir ruqi Valdebas li nag di benn ci ruq yi nga xam ne moom gone gi dugg na fa bu fo duggee leen na ko tax a jóg match décisif bi nga xam ne Manchester City war na koo football ak équipe bi la di Real Madrid loolee ñu ngi ko jàpp ci euh, juróom-ñeenti fan ci weeru awril nga xam ne moom la ñu nekk kon na gone gi dana am solo bu baax a baax ci yéen ñi koy suivre ngeen bàyyi ko xel euh, ci match boobee ma ngay am nag ca heure euh, Espagne vingt une heure waaye fii ci Sénégal match baa nga am lu toll ci vingt heures pile pile. loolee nag yaakaar naa ne ci koor gi lay nekk Vinicius Junior it moom it ñu coppati ko beral ko aw làcc ci li nga xam ne mooy entrainement bi mu wane fa boppam bu baax a baax moom gone gi nga xam ni. Euh, jàpp naa ne moom it daanaka gaa ñi soxla nan ko bu baax a baax nga xam ni ñu bari nee nañ triplé war na koo mën a teg ci temps bi ji entraînement baa ngoog coxor mbuj na waaye nag foofee nag bu ma neexee sax gars yi ma coppati leen lii nga xam ne daanaka gars yi war nañ koo mën a def mu nekk loo xam ne maanaam ab match la boo xam ne gardien bi bu ma neexee ma coppati ki nga xam ne mooy André Luin lii lee di axe bi nag maam doy na ca bu baax a baax moom Nacho mi ngeen gis ci entraînement bi mu ànd kook Antonio Rudiger beneen côté bi Carvajal Ferland Mendy di jàmbaar yi nga xam ne ay jën lañ yoo xam ne war na mën a téye défense sub Real Madrid bu demee ca digg milieu terrain ba nag gars yi nag la ma fa gis nag te coytu ko bu baax a baax ah ci li nga xam ne daanaka mooy digg bi ci waa mini ci bu tooyee nga fa kii lee di euh, Vinicius Junior wala boog kii lee di euh, Toni Kroos ak euh, Fede Valverde Bellingham ñeental leen jiitu ca kaw loola nag bokk na ci li nga xam ne mën naa nekk li di ci milieu terrain Real Madrid yi Bellingham nag mën naa jëm ca kanam Vinicius Junior maanaam coppateegu ma ko damay gis ci kaw ki li nga xam ne daanaka moo nekk euh, Brahim Diaz ak kii di Rodrigo Goes wala ki nga xam ne mooy Vinicius Junior Vinicius Junior Rodrigo bu fekkente ni moom Vinicius amul benn jafe-jafe ndax moom yenn saa yi bari lu muy xëccoo gars yi mën naa am ab suspendre sax te man du ko bàyyi xel waaye bu fekkente ne amul benn jafe-jafe ak gars yi moom Vinicius Junior yaakaar naa ne moom mooy ne ca kanam ak ki nga xam ne mooy Bellingham ak Rodrigo Goes wala Brahim Diaz ku ci mën di ñëw waaye Vinicius bu amut ak gars yi benn problème boobaa dégg jàmm lay doon entraînement bi nag mujj na complet ndax gis ngeen image yu am solo yi kii di Luka Modric ah, Fede Valverde mi ci digg terrain bi ngeen gis ko noonu muy yuqeelu moom Fede Valverde di jàmbaar nag gars yi wartoo xaar bu baax a baax ci li nga xam ni mooy boobee match laneen loo xam ne Kalidou Koulibaly xam na ko cher patriote cher euh, sénégalais yi nga xam ni moom moomee mi ngi leen di delloo njukkal di jàpp ne bis la tey jii bis la bu ama am solo ci histoire Sénégal moom euh, kii di Koulibaly depuis Arabie Saoudi